coucou wàllu Sénégal asalaamaaleykum waa Sénégal tey nag dañuy dellu ci seen série boobu di Virginie saison 2 bi épisode 2 bi bi nag suma si wax tey dama ci sawar lool parce que am na ay thèmes yu am solo ñu daal di dellu si histoire Laye alias euh, Flashka Laye nag gis ngeen ni. bañ ko jàppee ci histoire Flashka bi dañoo jàppaale xaritam boobu di Baylo nga xamante ni moo nekkoon complice am ci histoire bi bañ leen jàppee dañ leen yóbbu police ba instant bi dañ leen jàpp dañ leen téye ci benn cellule cellule boobu nga xamante ne ci lañ nekk ci prison bi nag dañ fa nekk ak benn xale bu góor xale bu góor boo xamante ne histoire am triste na lool lool lool lool lool lool xale bu góor bi moom nee na nijaayam moo ko indi dakaar pour mu jàng alxuraan ci daara daara boobu nga xamante ne ci la nekkoon nag sëriñ bi def leen di yelwaanloo dem nañ daanaka sax ba bu ñu mënul indi xaalis après en fin de journée dañuy passer toute la journée di yelwaan te bu ñu indiwul xaalis ci ngoon maa bi sëriñ bi daf leen di dóor dóor yu metti mu daldi dem ba sonn ci dóor yooyu ba mu sonnee nag ci la fàq. daal di dem di fanaan ci marché yi di fanaan ci sous pont yi ba benn góor fekk ko fa un jour ne ko xale bu góor bi fii ngay fanaan wóorul ñëwal ñu dem sama kër ci la topp ku góor kooku tey ku góor kooku mooy ki ko jàngal fenn jàngal ko sàcc jàngal ko naan jàngal ko genz lépp luy loo xamante ne lu bon la ku góor kooku moo ko ko jàngal ñu dem ba un jour police débarqué jàpp leen moom nag moo ngi noonu ci prison bi depuis trois ans kenn mësu koo seet si ay mbokkam seet si wuñu ko amul sax solution pour génn foofu noonu tey histoire boobu tax may lancer un message à nos parents dañuy naan doom de amal na ak ay waajuram waaye waajur de amal na ak ay doomam parce que dama jàpp ne doom boo ko juree la moindre des chose mooy nga toppatoo ko yar ko fi nga ko war a yaree subvenir à ses besoins primaires moo gën nga jël ko sàndi ko xamoo ci lu mu nekk muy torox di vivre vie yu difficile yoo xamante ne tey mooy dem ba dugal ko ci yoo xamante ne tey mënoon naa ñàkk ndaxte man histoire boobu situation boobu dama cee teg sama bët ba may nekk xale ay taalibe dañ doon ñëw di jaay ci sama maam ay euh, suukar ay ceeb ay bougie dem dañ doon dem ba di leen poser question pourquoi ñoom ñuy persister di jaay li nga xamante ne moom la ñuy yelwaan ñu ne seeni sëriñ de bu ñu indiwul 500 francs chaque jour saa yi ñu wàccee seen sëriñ da leen di dóor. sëriñu daara yi tamit yërëm leen xale yi te xam ne tey seeni éducation si yéen lañ ko teg te xale bu demee ba amul jàmm fu mu nekk rekk fàq dafi ji lu bon donc suñu parents yi sëriñu daara yi maa ngi leen di lancer benn message jàppale leen xale yi parce que ils ont besoin de vous ñoom ñooy avenir u pays bi demain su ma jógewee ci histoire boobu nag damay dugg ci histoire u Hamza ak Bachir Amza ak Bachir euh, man mën naa ne estimé naa réaction wu papaay Amza parce que xale yi léegi dañoo taamu dañoo jël sëy daal def ko genre damay dem sëy ji deux jour ma ñibbisi si sa sa yaay ne la toogal wala sa papa la toogal sama doom nga fii mooy sa kër am nga kër baay du noonu doom bu jógee ci néegu sëyam ñëw ne day tas sëy bi dàq ko mu dellu ji kër jëkkëram mais à une condition fi ma fi nga xamante ne paa bi def na erreur mooy nga xool li waral problème boobu noonu parce que góor ñi tamit war ngeen yërëm jigéen ñi mënoo am jabar di ko toroxal di ko dóor ku am yaay am ay rakk war a xam ne jigéen dañ ko war a yërëm Bachir nag war naa xoolaat comportement wam bu baax. buñ jógee foofu dañuy dugg ci cadre papaykat yi. papaay Katide gis nañ xaritam boobu nga xamante ne dafa ñëw seet si ko bureau pour ñoom ñaar ñu waxtaan papaay Katide dem na sax ba ne ko man de damaa bëgg a takk jabar te soxna soosu de dama la ko bëgg a présenté mais tontu bi nga xamante ne moom la ko xaritam boobu tontu daal jaaxal na ma lool parce que xaritam boobu nee na ko lan moo tax ngay takk jabar ñun ay mag lañ jëlal ci xale yu ndaw yi nga profité. féexal sa te doo engagé wu loolu nekk wax ju ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw mais kontaan naa trop ci tontu bi nga xamante ne moom la ko papaykat yi tontu parce que papaykat yi danee na ko dañoo nekk ay mag su may doxaan ba doxaan xaritukat yi lan laay wax te situation boobu dafa nekk loo xamante ne dafa fréquence ci instant bi da gis ay paax yoo xamante ne dañuy nekk di topp seen ginnaawu moroomu doom waxtuma moroomu doom sax dañuy dem sax bay topp ci seen euh, ginnaawu moroomu sët di leen doxaan di leen jox xaalis di yàq xale yi te mën a dem takk soxna su baax teg ko ci seen wet mais duñ ko def dañuy dem sax ba benn instant seeni njaboot commencé koo yëg di am kersa moo tax may lancer conseil aussi sama suñu papa boo nekkee njaboot am ay doom yu bëri danga nga koo war a bañ parce que instant boobu noonu say doom bu ñu sëggee rek yow yaa ko waral donc euh, loolu war nañ koo xoolaat bu baax a baax baax a baax a baax a baax daal di ko xeex ci suñu société bi ñu jóge foofu nag daal di dugg aussi ci yaayu Virginie mi nga xamante ne dafa nekk ci dilemme retouru papaay Virginie ci vie wu yaayu Virginie est-ce que du am impact ci mariage boobu nga xamante ne moom lañ tënk entre moom ak papaay yi ah Virginie daal ñëw na ci camp de marié camp de vacances bi lan mooy xew ci camp de vacances bi Cathy daal moom commencé fiir xam naa ne est-ce que Cathy dina supporter longtemps situation boobu nga xamante ne moom la nar a ci biir camp de vacances bi. Matar nag ay parents wam dañoo am projet de football si moom te moom bëggul football est-ce que dina réussir si football boobu nga xamante ne si la ay parents wam bëgg mu réussir Kati Fatel ak Maïcha seen cohabitation boobu nga xamante ne moom lañ cohabité en ce moment est-ce que dina dem est-ce que Fatel aussi dina mën a choisir entre étude ak euh, woy comme ni ko parent wom yi bëggee à vous d'en bàyyi leen seeni commentaire si vidéo bi pour yéen ñi nga xamante ne da di doog a ñëw abonné wu leen te appuyer leen aussi si cloche de notification bi pour que bépp vidéo bu ñu dugalati ngeen mën ci jot Merci, à bientôt.